Doro Gueye sàcc la criminel financier la mariage am dawul suñu yaram est ay dégg waaw ah, on s'en fout parce ay lobby mission secrète ñoom ñooy séente seen biir ah, yaa ma gën a xam te seen biir yëpp yu salte am na paasante jabaru. moom la ñu daal di jàkkaarloo ne Rapport jamono jii ñu gis li nga xamante ne moom mooy actualité bi li fi gën a fës bokk na ci euh, Kaaw Clara ak Racky Aïdara ci Doro Gueye bi ñu gis la ci génn di def ay sorties euh, bi nga déggaloo en tant que euh, koo xamante ne bokk ci réew bi dëkk ci réew bi nan waaw xam nga ñun moom gaama la sum waa ñun duñu ay complexé ah te ñun ñàkk ñu fayda quoi te duñu ay ngaaxa xam nga waaw Doro boobu c'est un malfaiteur c'est un criminel financier Doro Gueye sàcc la wuyu la te waga la waaw du nitu dara du du seytaane heure bii gaama la sum bu yoon defoon yoon mi ngi si kaso bi gaan à vie waaw parce que Doro Gueye bu leen fàtte ni moo fi jëndoon clé USB 10 millions ak yeneen mafia yu dul jeex. 100 mettre caméra yi moom moo ko fa def ay mission secrète xaw ma lan ak lan di sacrifier ay sénégalais ak ay sénégalaises waaw di téye Ousmane Sonko bëgg ko sacrifier daaw si heure bii nii gaamal la sumuwaay teg nañ alal gudul jeex waaw di daj zaahir ak pour sacrifier Ousmane Songo faat ko Ousmane Sonko dem si bàmmeel fii gaamal la sumuwaay fàttewuñ fi dara daaw comme ñun. man daaw si heure bii nii c'est le Ousmane Sonko arrêté grève de la faim maa ngi duggoon studio def vidéo clip suñu président mooy Ousmane Sonko di waajal tournage bi est-ce que yaa ngi dégg waaw kañ kon ñun fàttewuñ dara Doro Gueye gaamal la sumuwaay suufu Sénégal yi ngeen di gis nii yu dul jeex ay Doro Gueye Aziz Ndiaye Elimane Lam Wally sek li ñu mbëkk ci suufu Sénégal laa lay wax nii liñ jaay ci suufu Sénégal barki alxuraanul karim heure bii justice bu amee Sénégal rek laa lay wax nii seen dund si kaso yi ni koy àggalee barki Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun dëgg nañuy dund moom la ñuy wax dama ni justice moo am ak injustice justice souveraine moo am ak kumba am ndey kumba amul ndey dóor doom làqu doom yaa ngi dégg deux poids deux mesures loolu yàlla nañ si yàlla musal dañuy xeex pour maanaam ay injustice ak ay kumba am ndey kumba amul ndey jóge fi totalement te suñu justice bi woolu nañ leen man ku mu neex na dem porter plainte de ku mu neex na dem porter plainte wala laay bañaa dóor doom làq doom man kaso ak naan ndox laa yamale kaso ak bàmmeel ak naan ndox lépp laa yamale mais xam nga la laay bañaa nga jël ma man tëj ma kaso nga condamné ma waxuma sax kaso de nga condamné ma même bu dee diffamation ay sursis nga def sursis wala nga amende ma nga condamné ma ah ba pare malfaiteur bi nga xam ni moom moo ma plainte jëloo dugal ko si kaso bi atte ko ma loolu laay bañ te wax naa leen fu mu amatee rek laa lay wax nii xoola naa jël gain man la su ma waay incha allah rabbi fu mu amatee damay jël asile ba pare gain la su xoola dem beneen réew waaw def réfugié ma dem nekkee réfugié dem changer nationalité dem jël beneen nationalité waaw kañ su boobaa nax naa continuer wax lu ma neex te ci dëgg laa koy teg barki Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yéen da ngeen di dof dof yéen xaajoo leen bay dof.

man saa waay du ma la nëbb de man ay ati kaso sax laa lay wax nii coow du jib mais xam la laay bañ kuy jéem a maanaam sama intelligence di jéem a piétiner sama dignité di jéem a cracher sur mon honneur loolu du ma ko nangu te duma ma ko nangul kenn est ay dégg ñun ñëpp sénégalais nañ ñun ñëpp ay sénégalais nañ doo ñu téye téye suñu alal gaamal la sum waay ay détournement deniers publics ay prête non yaa ngi dégg riiba saaku deret ba pare du ñuy jéem a jaay affaire loolu ñun ñu ko nangu de ñun fii suñu réew la suñuy maam maam maamaat ñëpp fi nañ juddoo waaw suñuy maam maamaat gayan xoola nekkoon ay bañkat di bañ di ko jëflanteex tubaab yi kon yéen tubaab yi ñuul yi gaama la sumu waay dinañ sax si dénoncer seen ay mafia dorogay sàcc la criminel financier la mariage am dawul suñu yaram est ay dégg waaw on s'en fout parce que ay lobby mission secrète ñoom ñooy séente seen biira ah. yaa ma gën a xam te seen biir yëpp yu salte am na paasante jabaru jaamu rek laalante seen biir yooyu yëpp dañ koy def ay ñu salte te bon nañ ñu ay nitu dara moo tax loolu ñun dawul suñu yaram don't give a damn about it lu ma si naqadi kañ mooy gaana ah. askan bi ñuy jéem a détourner opinion bi ah na xaw ma ay affaire de bëgg buzz xaw ma ay xaw ma soi-disant influenceur ay góor jigéen ay góor jigéen yu tekkiwul dara gain di jël ba ana góor booy saawaay ak naan xaw ma ay dañuy waxtaanee xaw ma ay mariage yu jàmbur ah yéen ay pousse ngeen ngi amal la sumuwaay ay kanaar këtt gen yu bon ay góor jigéen man la sumuwaa ji mais xaaral rek incha allah rabbi bés bu ñu criminaliser homosexualité fii si même réew plainte yi si góor jigéen yi saawaay ah dina taw incha allah rabbi ni maaju gerte ngeen war a dem gaan takk jabar bàyyi njaaloo ñu si ëpp gaan njaaloo rek nañ fiy nekkee gaan bës la ñuy bëgg pour jéem a iri benn nàmp xol ngay ree waaw tëddee xale yu jigéen ñi njaaloo gauche ak droite di bàccan sobe si paj paj paj paj paj paj ñoom ñoo um Sénégal ñoo yàq senegaal ay nit yu bon nañ ay nit yu yées wala boog li ñu jéem a emmerder naan xaw ma ay mariage non kii mooy aawa léegi eh léegi kii mooy arel ñuul saawaa ji suñu yoon new si bu leen ñu sonal gaa ma la sumuwaay ñun heure bii nii gaa ñu ngi yàqamti justice ñu jàpp criminel financier yi sàcc yi bu alalu Sénégal bi ñu sàcc après jël leen ñoom ñëpp yóbbu leen si kaso yi jeunes yi gaa ma la sumuwaay ñun ñu am gaan ay emploi ñu am ay poste wala ñu am ay liggéey yu baax ñun loolu lañ tal ñun ay responsable lañ di ay borom kër ay borom njaboot taluñu affaire u ñàkk faada ay affaire de bàccante fii njaaloo fii ah ay affaire de kii takk na kii mais booy booy booy booy dama am gàcce quoi ci Sénégal booy billaay walaay wa talaay yéen yu ñàkk fayda yi may gis gars yi booy ah daf ko bës naan dañuy jéem a xëccu di xaacu di tëbaka dal ah te lu ma si gën a naqari bu doon ay jigéen sax ñu ni waaw na yem si ñoom quoi entre jigéen ama waaw ah, parce que ñun mu góor yàlla yi champion yi ndaanaan bu ñu bëri cagay yàgg nag waa neen bàyyi ñu def leen neex lu waay def boppam mais booy ay góor jigéen booy saawaay gis sakum jël sol tubayam gaama la su yor ay gandi xuur booy booy booy di téye booy saawaay di topp ay affaire yu ñàkk fayda booy ay détail booy ay affaire non kii mooy aawaam kii mooy ñaareelam booy yéenay yàq der bilaay wallaay yéen yéen ñii booy dañuy yàq deru góoru senegal booy góoru Sénégal foo nee góoru Sénégal wax jàmbaar waaw wax Baay Ñas l'international al Islam wax Maam Mam modo, Sara Abdou Aziz Dabakh mam Limamou Laye mam Baye mam foutu Foutiyou ay Ousmane songo ay jambar, ay Cheikh Anta Diop mooy góor senegal Senegal, saawaay sénégalais danan la champion la bañkat la waw me ngeen gama le la ah, si di di wàcc man d'accord na sa ngeen di wax me ngeen nek ay porteur de voix ay lanceur d'alerte wala ay activiste wala ngeen di défendre ay cause noble boo di wax ngeen wax mam pour défendre suñuy valeur mais ay affaire ay wax si ay sëyu jàmbur kooku bu setoon sax ñu ni waaw mais koo xam ni sàcc la criminel financier la ah toroxal na fi ay sénégalais yu dul jeex wala boog ah ay booy gaama la sum waay am naa lu ma naqadik waa si loolu gaan waaw mais lu waay def boppam incha allah rabi moom dëkk bi nañ ko jubanti te bëgg nañ dem gaan ci pencu ndaw réew mi bokk ci ñuy tek loi yeex yépp proposition loi yeex ñi kay voté lepp ba jubanti Sénégal saxal ko ci dëggal jubal leeral sellal waaw kay incha allah rabbi di nga nekk nit par la force da ngeen doflu yasaay. immigration clandestin yi jamono ji gis nañu nit ñi ñu ngi dé ci géej ba légui arrêté wul c'est-à-dire que barké dem rek amna benn gaal goo xamante ter na fi nga xamante mom moom mamel euh tay ñu bari di top ay cas ak ay wax yi non non nooy waxee loolu

liñ def Senegal, waaw mbam yi ni golo yi liñ jot a yàq Sénégal bàyyi leen ba suba ngeen deglu ngeen da ngeen wara ñew ñu and si combat bi xex pour jubanti Sénégal redresser le Sénégal bàyyi len jël gal yi nañ ko gëm ñun ño andon gëm ko gaan ba xexal Ousmane songo ba tay projet bi falu kon bo len demee lek def ngeen haute trahison waaw bo len demee lek war ngeen waaw cuub ngeen sen drapeau lolou bu len ko def ñun ñi ngi ni ño doon xex waaw suñu wéccit yu ndaw ñu daan yor lépp dañ ko daan jël di ko si dugal si xeex yi daan jël sax suñu alal gaayan xoola suñuy laas teg jeexal di jaay di ko si teg barki Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam tey mi ngi nii dara changé wul est-ce ay dégg waaw mais ñu ngi muñ gi amal la sumu di patienter am nañ patience patience si jeunesse saine la bokk jeunesse responsable mature et digne jeunesse gi amal la sumu waay da ngay am patience yaa xam te yàqule tay si tay bu len len ñee ñi gaan ñi ngeen di ñee si town bi gaan ñoo yor suñu alal dañu wara and def bloc def ben say ñu xex ba justice japp len nangu alal bu senegal bu sacc jëlat ko def ko si contribuable sénégalais ba pare ñoo ñu jël len duggal len si kasso yi bu ko défé jeunesse bi ak jeune yi tout tank yi dinañ jang exemple xamni kat sàcc alalu Sénégal. eh, eh, eh, ay eh, eh, eh, ay prêt nañ. ay malfaiteurs ce sont les associations des malfaiteurs les bandits les criminels financiers les vampires buveurs de sang bu leen leen ñee booy toog leen ngeen gëm ko ñu gëm ko maam ñun ñëpp ñu àndandoor jàppale la président Diomaye fay président Ousmane Sonko jàppale projet Pastef yi ñu jubbanti Sénégal incha allah rabbi jeunesse bi am liggéey am ay liggéey yu baax ñu toog Sénégal maam ni nga ko gëmee si maanaam cinq ans yu mujj yi nii ah biñ ko gëmaatee incha allah rabbi ñun am nañ yàqin que ni maanaam maximum dix ans tubaab yi laa lay wax nii de comme français yi ak yeneen xeetu européen ñoom ñooy daw si di ñëw fii Sénégal pour ñëw émigrer si te su boobaa incha allah rabbi ni ñuy jubantee Sénégal di teg ay projet de loi ñoom seen dugg si fii du yomb parce su boobaa visa Sénégal laa lay wax nii ku fi bëgg a ñëw di génne ay millions incha allah rabi ñu lool lañ gëm comprendre na waaw am nañ maanaam ressources naturelles yëpp yoo xamante nii dëkk yi moom nañ am ba développé ñoom dañoo ñëw saawaay xeex ñu ñoo leen ëppale sax fuuf ay ressources naturelles ñun lu ñu am si ressource naturelles Italie amu ko France amu ko Europe mun nga fa dajale ay almaañax ay g ñoom ñëpp mun nga leen dajale Sénégal li mu am si ressource naturelles G8 amu ko. est ce que yaay dégg waaw barki alxuraanul karim ñun duñu ay ngaaxa moo tax may la jeunesse bi te yàlla tax message ma leen di lancé yeewu leen ngeen gën a organiser wu waaw ñu gën a organiser wu def bloc xeex état bi tey si tey gaa ma la su ay nit ay nit ñaay ñoo fa nekk te ay jeunes ñoo fa nekk suñ ay morom ñoo fa nekk man ñu nekk si état bi mënuñu ma jur chef de l'état ma jur sama grand frère la mais respect son excellence le président mais ñoo ko sax gën a xeex. président ñun ñoo ko gën a xeex fuuf ministre yi ñoo leen gën a xeex fuuf ak DG yi yàlla mooy tànn teg leen foofu kon ñun nañ ànd xeex ñoom bu ñu defee saa parce que nit tamit mooy juum waaw tey say moom ku dul juum amul buñ juumee ñu wax leen ko ba pare bu ñu utal lu lay job ñu dénoncé ko wax ko te nañ gaaw nag utal jeunesse bi liggéey surtout maanaam jeune combattant yi parce que ñun ñoo ko xeex si mbedd yi. ah am na si ñoo xam ni gaan daaw si heure bi ñu ngi yéene woon Sonko dee jomaay bi mu toogee wàccee na leen ah te ñeneen ñi mu fal jël na leen falaat leen te lool ñu ngi koy dénoncé di ko ñaawlu te yàgg nañ ko dénoncé waaw ñu ngi du ñu dem bisimilah julli ah. waaw jaajëf bëggee ah tous ba teng sa